ñi caabit feete ginnaaw yàlla na leen yàlla génn te buñ fa defaat leneen lu ne tax ñu duggoon fa suñ toogaay bii yàlla nañ ko ànd ak suñu mag ñu baax yi ëllëg àjjanay firdaws suñu mag ñu baax ñi yàlla na leen yàlla euh, euh, yàlla na leen yàlla yàlla nañu yàlla fayal leen suñu mag ñu baax ñi yàlla na leen yàlla fayal leen ndax tamit lii lépp ñoom la buñ démé ba tool bi set wicc ñom la won ñom ño bàyyi won lépp ba tay ji man naani ñom ñoñu togal ba togg gi neex yakal ñuko ba saxal ñu sax lay wax saxami rek mo ci dess kon li si des ñun ñokay agalil suñu bop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ñun ñëpp ben lañ nak suñu borom mo ni wa wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yen ñëpp. na ngeen jàpp ci buumu borom bi subhaanahu wa taala muy diineem ji te bu leen tàqalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni masalul muminina fi tawaadihim wa taatufihim wa taraxumihim ka masalil jasadil waaxid isastaka minhu uduun tadaa lahu saairu jasadi bi sahri wal xuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni misaalu jullit yi mi ngi mel ni benn yaram yaram lépp lu ci metti rek yaram yi lépp da koy yëg loxo buy metti dangay gis tànk yi mooy dem hôpital di def solidarité bët yi mooy jooy day feeñ ci kanam gi kanam gi day def solidarité nga xam ni kii dafa am lu ko dal même tànk bi sax buy metti tamit yaram yi népp noonu la ñuy solidarité kon boog jullit yi noonu lañu ñu war a mel nekk benn yaram يونت بي صلى الله عليه وسلم دون دي واخات ني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعده لبعض من جلد اك بوك جوليتام مي من بن تباخ بن مير بريك بو نيك داي نانغو بن بريغام تيغو سي ام بتيما مي بريك بو نيك بو بين كات بن بريك دو تيغو سي مان سو بوبا لي نكام من جوليدي نون لا ني كون بوك نيون نييب بن ndax ñoo bokk borom bi subhanahu wa taala ñoo bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te liñ fi doon jàng lépp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugguwaat kon boog am na loo xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy denc ba gàmmu ga waaye tamit di dénk suñu bopp di leen dénk rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax benn xadis mu ni sapaatun yuzilluhum fi zillihi yowma la zilla illa zilluhu إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في قلوة ففادت عيناه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل داعته امرأة ذات منسب وجمال إلى نفسها فقال إني أقاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم simaaluhu maa tunfiqat yaminuhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróom-ñaar ñii ëllëg yàlla di la leen keral sa bis ba nga xam ne amul ker ku dul keram nga moom borom bi subhaanahu wa taala nee na juróom-ñaar yi may bëgg lim ëllëg ñoom la fay keral bis njëkk mooy imaamun aadilun mooy njiit bu maanu njiit bu maanu buñ ko waxee mooy imaam bi nekk ci daayira bi da ciy dugg imaam bi jiite jàkka ji da ciy dugg lépp lu waay di jiite rek ëllëg dangay dugg ci njiit boobu mi nga xam ni yàlla di leen keral ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mu ni ñëpp ay sàmm lañ te ëllëg yowmal xiyaam dina leen laaj li ngeen doon sàmm boroom kër gi nga xam ni kat moo jiite kër gi ëlëk suñu borom da koy laaj nan nga jité won njabot gi soxna si nga xamni mo moo nekk ci kër gi di yar xalé yi ëlëk suñu borom daf koy laaj nan nga doon yere xalé yi ndax yaa ngi doon sàmm sa alalu borom kër ci kër gi même kudd gi nga xam sax bu réré ëlëk dañ la koy laaj lepp lo xamanteni soxna la moy nekk ci biir kër gi responsable ëlëk suñu borom daf ko koy laaj ba nga ki nga xamni nak moy borom kërëm buy julli day taxaw njaboot gi dañuy julli lu muy def day nek lo xam responsable lay doon ëlëk suñu borom nee laa sa soxna si nan nga ko jité won say doom yi nan nga leen jité won ëlëk suñu borom daf la koy taxawal kon njit bu maandu bis top moy wa shaabun fi ibadatillah ndaw bo xamanteni dafa soso ci jaamu yalla ndaw bo xamanteni leppam jaamu yalla la comme niñ ko defé ni bu dimanche bu dimanche joté ñëppay dem kër sëriñ kër maam borom Touba bu jotee ñëppay dem kër maam Alaaji Malick kon euh, mag ñi loolu la ñu loolu la ñu tàggate woon àll ba àll ba allahu akbar mooy lan dem dem liggéeyi la sëñ Saliou doon wax waaw dem liggéeyi bi ci topp mooy jaamu yàlla bi ci toog mooy jàng te loolu rek mooy àdduna moo fi nekk liggéey ngir sag njaboot ak jaamu yàlla yii rek moo fi nekk al amal wal ibaada waaye ñun bu dee léegi dañ naan ndaw bu dee jaamu yàlla day gaawa de fekk ndaw la suñu borom soxla bis boo demee ba nekk mag suñu borom ne leen doy na soxlaatuma la kon bi ngay nekk ndaw adduna la soxla la soxla la jigéen soxla la seytaane soxla la foofu ngay jël jël suñu borom nga jox ko suñu borom waaye bis boo demee ba nekk mag moom ba xam ne yow kenn soxlaatu la adduna soxlaatu la suñu borom ne leen doy na. même aduna tuba bi bu lay liggéeyee ak ku mën ta liggéeyloo ndaw la soxla da ngay am fo tolu mo la ni doyna amuto katan gi kon wa shaabu nashaa fi ibadatillah bi si topp mooy wa rajulun zakara allahu fi qalwatin fa fadat aynahu wa jo xamanteni day foog guddigi gi mu jóg di xalat ci kemtani suñu borom yi mag ñi fofu lañu rawante ngay xol asaman si lan moko bind suuf si lan moko bind ci xalat di xalat suñ borom di xalat ci bammel ba say rongoñ tour ëlëk suñu borom nee ëlëk dina la duggal ci ker googu ko nit dafa wara tok ba si muy wéetal suñu borom ba ñu topp mbiru aduna yi rek xam shaytan mom daf lay nax rek ñaar yi fi nek muy beccëg gi ak guddi gi dañ lay awanto rek bu beccëg gi péré jox lu guddi gi beccëg gi da la naan maangi ni ana lan nga def ci man profitool def ci man li may def li ngay def bis bu ma demee dootuma ñëwati bu paree mu paas la guddi gi guddi gi tamit noonu ñaar yooyu kenn moo la ciy mujjee naaj na wala guddi na nit ku nekk di nga am loolu naaj na wala guddi na kon ñaar yooyu ñoo lay mujjee kon boog ndaw boo xamante ne day toog ba si yàgg muy xalaat suñu borom ba si yàgg ay rangoñam tuuru suñu borom nee na ëllëg dina bokk si ñi nga xam dama koy keral bokk na si tamit wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajidi ak waa joo xamante ne xolam bi daf koo wékk sa jàkka ja bu jullee suba day profitoo bëgg ba tusbaar jotee mu gaaw a dem juut euh, dem ci euh, jumaa ja bu jullee tusbaar day bëgg tàkkusaan jot mu dem julli ji bu jullee tàkkusaan day bëgg euh, timis jot mu dem julli ji koo xam te ne bi lépp daf ko def ci jàkka ji oto mu warajulul qalbuhu muallaqun fil masajid waye tamit bokku na si tamit warajulaani tahabbaani Allah. ittama alayhi ñaar ño xam buñu bëggante dañu bëggante ta yalla tax du ben am ben intérêt bu ci am da ngeen di bëggante ta yalla tax ittama alayhi bu ngeen di bolo na ngeen bolo ta yalla tax waye nak wa tafarraqa alayhi bu ngeen dem bay takliko takulen ta yalla tax lol moy and ngor tay ji am nga soxna su ngeen demee bay ànd ànd leen te yàlla tax bu leen ci xol benn intérêt waaye tamit bu ngeen demee ba yàlla def am ndax dëgg si yàlla bu kenn weer moromam xol leen lu baax li leen jiitu woon lu rafet li amoon ngeen remplacer ko lu bon li bu kenn weer moromam bokk na ci tamit wa rajulun imraatun zaata mansabin wa jamaalin illa nafsiha waaye joo xam te ni jigéen ju taaru bokk ci askan bu mag ñom ñaar dong ñu wét mu woo ko ni kon ini ñu moy yalla mu kon inni aqaafullah dama ragal yalla kaw ni leen ñëwal sama bop ak ni dama bëgg ñu moy yalla man ak yow donga fi nek mu nek jigen ju taru bokku si askan bu mag nga kan inni aqaafullah rejeté ko ne ko ragal yalla lewoma ëlëk suñu borom neen dina la boole ci ñaar yi nga xam dem leen keral waye tamit bokku na ci ko xamanteni ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أكو هم دن بوي سرخه داي نوب لامي سرخه مانام دي سي غيستال بي دو خام لي ندجور بي جوخه واو بوي سرخه تيامن بي دو خام لي ندجور بي جوخه جوروم ñaar ñi Allah yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci ëlëk dañ leen keral aljana kon mbokk yi dundu aduna nek lu lo xamanteni lu nit ki fi mu sasoo mooy lan mooy ci almaniyu ngeen baal ma ci baat bi rek dañuy jàngale loo xam te ne bu la taqee da bëgg lu dul mu dañ sa yére nee nañ sax ginaar sax da koo seexlu doomu aadama ci loolu la sosoo bi mu duggee ci loolu ñeen fukki guddi suñu borom di ko togg ba mat ñeen fukki guddi suñ borom def ko ben lumu deret def ko ben lumu deret mu joge fofu suñ borom diko ko togg ba mu nekk benn yap yàpp comme nga jël rey xar rek jël ben suxu suxu yap ni rek noonu rek lay doon bi joge fofu borom nak la di nak def la ko neex kon doomu adama afa muy ñew si kaw suuf suñ borom daf koy préparer dundam gi lépp foofu la koy suñu borom di dëxëñee ndax kuy texe lay doon ndax kuy texe di lay doon ndax ku am wërsëg lay doon ndax ku ñàkk fan lay doon ndax kuy gudd fan lay doon ndax kon kuy gàtt fan lay doon suñu borom foofu lay programme doomu aadama kon doomu aadama dafa nekk koo xam te ne suñu borom ma ni xalaxal insaana min du'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة والشيب يخلق ما يشاء nee na doomu aadama dama ko bind mu néew doole lool nga nekk xale mënuloo dara nekk ab liir loo def dañ la koo defal buñ la yëkkatiwul doo dem fenn nga jóge foofu di raam di daanoo ko jóg mënuloo dara sa bopp ba léegi da nga néew kàttan suñu borom joge fofu andi fi quwa muy lan muy ñun ñi fiñ tol muy shabun muy ndaw koku la suñu borom soxla koku li ñepp soxla waaw koku li ñepp soxla muy ndaw waye nak ndaw gog nak dañ ci profito xamni amna lu ci tok moy lan wa shayba waaw comme ba ngay nek xalé xamni da ngay teud ben place do man dara dang fay tolu wat bu la yalla maye fan te yalla nañ ko yalla defal nopi dotul neexati da ngay ñew di wax ak sa mam il faut nga yuux ko ba ci nopi ndax lan dafa nekkaat xale. day dem ba si sax day na xel mi day dem lu xew ci kër gi sax dotu ko xamati dotu solo di yëritu bu akbar lo tax mag ñi duñ lek ba sour duñ nan ba mandi boo allah akbar ñu fugar fugar jóg ndax lan seen benn tànk mi si àdduna seen benn tànk mi sax mi mi àllaaxira maam doo lekk mu ni suur naa xamatul lu neex xamatul lu naqari ñun ñii fu ñu toll ñoo xam lu neex ñoo xam lu naqari ba muy nekk xale xam ne ruy la daan lekk day toll moment boo xam ruy boobu lay lekk mënutu lekk yàpp mag dikk na yaram bi day néew kàttan buy dox day sukkandiku. bët yi ab gisam neexatul amatul bañ yim lekkee doomu aadama day toll foofu kon loolu nañ ko bàyyi xel kon ñetti étape yi rek lay doomu aadama di dund ويفعل في ملكه ما يصى تعالى الإله وجل الحكم فما إن يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بها أيوة اللهم صل وسلم على واو نبي الأطاب الهدى والكرم واو سلام تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وآخر أجدف لني فما سأكان وما مملك نغمي أم فما وما يلا لك نغلي فما سأكان وما مملك نغمي أم فما سأكان وما لم يسأ فمن تميغ كيف صاحتكم ويفعل في ملكه ما يصى تعالى الإله وجل الحكم أيوة اللهم صل وسلم على واو نبي الأتى بالهدى والكلام واو صلاة تدوم وتبقى إلى قيام العدم وأسر أجلف لني وما إن يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بها زختتم فما سأكان وما لم يصا فملتمع كيف سأختكم أيوة اللهم صل وسلم على واو نبي أتى بالهدى والكرم واو فلا تنتدوا يقوم وطاق إلى قيام الأنام وقل دفلني بهذا الولي القادمان ما شاء الله جزاكم الله الخير tey moom dañ leen di lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incha allah ba guddi ga rek incha allah loolu moom dañ leen koy lépp ba guddi ga rek bàyyi ba guddi ga rek léegi ñu ñaanal suñu kilifa gi fi jóge fan yi paase yàlla na ko yàlla xaral àjjana ëllëg yàlla na bokk ak maamam àjjanay firdaws yàlla taas ñu ci barkeelam waaye tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ daan bokkal toolu xere bi muy ku mel ni maam góor ak euh, sëñ Seex Njaay xam ne tamit ñoom ñoo bokkoon lii yàlla leen yàlla xaral àjjana yàlla yërëm leen te jéggal leen mu mel ni que ñu ngi ci ndaw mm-hmm. يرنت صلى الله عليه وسلم دون وقت من نان اختنم خمسا قبل خمسين شبابك قبل الهرمك وغناك قبل الفقرك وفراعك قبل صعلك وسقتك قبل سقمك وحياتك قبل الموتك يرنت صلى الله عليه وسلم دون وقت نان جبلين جرومي جبلين جرومي بلا ينن جرومي نيو tala chaque mënta ñàkk juróom yi day ñew fek doomu adam mi ngi gudd fan sóoraale ni juróom yi day ñew force bu mu si jiital mooy sag ndaw sak ndaw profitoo si jaamu si yalla, bala mag a ñëw mooy lim leen do wax legi ndaw day jeex digënd bu gatt la shaytan da lay soxla suñu borom daf lay soxla waaw bu dee xale bu góor boo solee yére macha allah di mën a daw ay kilomètres am Bachir mën a xool mën a wax nit ñi di dégg bu dee jigéen nga da ngay toll ci buntu àdduna di bajantu waaye suñu yaay ak suñu papa yi ñoom fi ñu tolloon ñun ñi toll dañ fay toll. kon bi ngay nekk ndaw profitool jaam ci yàlla balaa mag a ñëw mag boo gis rek ñun fi tolloon tolloon na fa waaye tamit mu ni sag wér jaam ci yàlla balaa wéri day ñëw ndax jamono ji ngay wir bis boo demee ba feebar la nga mënoon dootoo ko mënati te wér ak wéri di ñoo ànd mu ni jamono ji ngay am jot Hmm. parifito jam ci yalla bala ñak jot ñew muni sa alal ji jam ci yalla bala ñak ñew waye sa dund gi lepp jam ci yalla bala deew ñew kon yi day ñew la chaque na ci nit ki bàyyi xel bo demee armeria ya, fekk nga fa kula gonona nek ndaw fuuf as bi nga tollu mu nga fa tollon waye tay min ci bammer yasiru fil xabar budé alal ji nuy wër ku la ko ëppale won fuuf amon nako tay ji bàyyi na ci aduna tay ji mi ci bir bammel lolo tax waykat arab bi naan tazawwadu min ad-dunya fa innaka la tadri isa janna laylu hal taishu ila alfajir fa kam min saxiixin maata min xayri illa wa kam min saqimin عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج ولا يدري من ومن عاش ألفا أو ألفين فإنه لا بد من يوم يسير إلى الخبر مني نين préparer سين بوب ndax bu demee ba xaaju guddi wóor la ba xam bët set dina la fekk mbokk yi ñaata nit ñoo xamante ne reer nañ ba suur nekk ak seen njaboot moo tëjal boppam buntam tëdd amaana bi muy xëy dañoo dajji bunt bi fekk mu génn àdduna te dara jotu ko kon na nga bàyyi xel ni bu demee ba xaaju guddi wóor la ba xam bët set dina la fekk mu ni wa kam min saqiimin aasha xiinan min ad dahri ñaata nit ñoo wér dara jotu leen ñu xëy rek ñu leen génn àdduna ndax nit dañu dañoo yaakaar nit mom buy génn àdduna il faut mu feebar loolu moom yaakaar naa jamono ji loolu moom leer na hmm. ñu ci bëri dara du leen jot ñu xëy génn àdduna ndax ndax dee moog pak moog dag moog dàll wuy dag ñoo yem buy ñëw du la tàggoo malaaka mi dina ñëw si yow juróom-ñaar fukki yoon bis bu nekk doomu aadama bu nekk malaaka yi dina ñëw si yow juróom-ñaar fukki yoon di xool ba xam ruugi ñor na wala ñoragut ab paanam la yor kër gu nekk lay dugg ab paanam la yor dina ñëw ñaar fukki yoon di xool ruugi ñor na war a ñorut bu ñoree rek mu witti ko dem ci keneen afil mawti raybun incha allah jërëjëf sukran jazakumullahu xayra kon ñu bàyyi xel dund gi lu bu baax xam ne dund gi luy jeex la ba fi may waxe yéen ñi malaaka mi am na ñum jël seen ak ruux kon dina ñew ci yow juróom ñaar fukk yoon di xol ba xam allah est-ce pablay euh, sëñ wo yéen ci yoonte bi sallallahu wasallam wa tay mom dañuy rasu ba guddiga ga allah ba liñ denc guddi lañ ko bëgg a génne boobu léegi yaa ngi ci xëcc allah dañuy bàyyi bu guddigi kon bok mbok yi ñu gor wat bu baax ci jaamu yàlla yi euh fi ma moy euh tazawwadu min ad-dunya fa innaka la tadri isa janna al-laylu hal taishu ila al-fajr muni fa kam min saxiixin mata min xayri illa muni bari waare ni ñu xam dañu wér dara jotu leen ñu xëy rek génn aduna euh muni wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri ñaata nit ñoo xam ne dañoo feebar ba ñëpp yaakaar ni kii moom dootul jógati ci dundam mu dund lu mu ëpp la dundoon benn histoire lañuy wax ñu ni benn waay dafa feebaroon lool feebar bi mbokkam yi dem nañ fu ne alal ji ñu yoroon lépp def nañ ko ci léegi ñu bu ñu demee ba jaaxle ñu ni kii daal dañ koy yóbbu ñu fay médecin bi ni kon kii daal dañoo bëgg nga pikir ko pikir boo xam day génn àdduna njox ñu noppalu ndax ñun liñ amoon lépp def nañ ko ci médecin bi neen amul problème ñu waxaale juboo ñu fay médecin bi mu leen bu subaa andi leen seen keesu néew ngeen jël si néew bi médecin bi jël pikir bi gën a baax ci pikir yi laat ko koy dóor bi mu ko ko pikiree pikir yi dee bi si la wér te ñoom dañoo jëloon décision pikir ko ba mu dee waaye boobu heure mu jotagul woon mbokam yep yuho dugu hôpital pour ñom waji ji di yuuxoo di joy, biñ ñe fekk waji mi ngi ci kaw lolu hôpital bi tanan pikir bi ngeen ma pikir yeex ngeen mako pikir da ngeen mako pikir rek mu wër kon febar ak de wuute wuñ dara waye mu ni wa kam min fatan amsa wa asbaha dahikan wa akfanu fil ghaibi tunsaju wala yadri muni ñaata ndaw ñolo rom di espor, ñaata ndaw ñolo rom di bajantu ñaata ndaw ñolo rom di retan ta xamul ni mom mbalaan warasange, ko wara sangé miñ ci marché bi di ñu koy jaay ta mom bàyyiwu ci xel da ngay jek rek ñu leen pourtant diw mo genn aduna ñu leen ni diw mi fi jaar ñu ah mo genn aduna de kon la ci nit di bàyyi xel waye nak mu la ni wa aasha alfan aw alfayni kep ku fi dund jundi at ta sax mënul nek nit bu dundé juróom ben fukki juróom ñaar fukki rek presque pare na wayé nak mu la ni même bo dundé junni at wala ñaari junni at bis dina ñëw da ngay dugg ci biir bamél bis dina ñëw nga dugg ci biir bamél ndax lan mawt babun wa kullu nasun dakhiluhu wa yaa layti sha'ri ba'da al mawt madar fa daru daru naim in alimta allaha bima yarda ila allah wa in qala fa turab wal qabru sunduqul amal wa turaabu firaashuhu wa duudu aniisuhu mu ne dee buntu la de te buntu boobu ñëpp ciy dugg aller sans retour la boo duggee amul génnaat aller la waaw bépp nit moo ciy dugg bu fekkee jëf nga loo xam ne suñ boroom gërëm na ko mu ne ëllëg sa daar sa kër mooy ajjana waaye nag boo toppee seytaane jëf loo xamante ne mbiru seytaane mu ni su boobaa kat wal iyaasu billah safara mooy sa kër waaye mbokk yi ñoo bàyyi xel ni première guddi bàmmeel est-ce que ñoo ngi koy bàyyi xel avant loolu sax bis bi ñuy malaaka mi di bett que ñoo ngi koy bàyyi xel bis nit fenn rek lay doomu aadama fi muy njëkk a gisee malaaka mooy bi muy dem muy génn àdduna waaw wow foofu la njëkk a gisi malaaka kon guddi jour ba bàmmeel nañ koy bàyyi xel bàmmeel la nga fa yóbbu rek nga fay fekk kër la goo xamante ni kër gu set wicc ba nga fay tuxu fekkoo fa mbóot fekkoo fa jinax fekkoo fa dara kon lépp loo fa fekk rek yaa ko fa yóbbaale waaye bis buñ fay dugg yàlla nañ fa duggoo ngërëm borom subhaanahu wa ñu bokk ci radiyallahu anhum wa raddu anhu ulaayka xisbullah ala inna xisballah humul muflixuun nañ bokk ci yàlla nañ si yàlla boole kon bokk mu ni saxi si biir bàmmeel ñoom ñoo lay wéttal wa duudu anisuhu saxi ñooy nekk sa wéttal ndax lan buñ la suulee ñetti fan rek biir ba day commencé rës saxi ñooy nekk say wéttal mu ni si biir bàmmeel boo nekkee fii ci àdduna da tëdd lalu quatre cent mille wala cinq cent mille ba un million ngegenaayu waaye nag si biir bàmmeel liñ lay ngegenaayoo mooy lan benn benn benn dooñu suuf bu ndaw lañ lay ngegenaayoo nañ ci bàyyi xel waaye nag mu ni bàmmeel mooy keesu jëf yi la fa jëf rek moom nga fay fekk kon nañ bàyyi bis bi nga xam ni mbokk yëpp dañuy teew ñëpp teew ñu tëral si suuf كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت ساق بساق إلى ربك يومئذ للمساق بس بيغا خمني سونو بوروم داي خيتي روغي بام اكتي سي بات بي نانا انا كن مو مانا موچو ني ديم ووي جورين عثمان جوف مو نييو او استاذ يوسف نياي مو نييو موچو موچو ديف ليب نيوم خامنا ني كي داي دي. waaye ñoom il faut ñu lekk seen alal il faut ñu lekk seen ñaq oustaz laa di ñëw def lépp mocc ba sonn ñu génn 2000 jox ko mu dem. mu ni ana kan moo mën a kii ñu wooyi docteur bi mu ñëw pikiir def lépp dara bu ñu jëlee benn tànk bi bu ñu ko sànnee ci benn tànk bi sidi di bàyyi na bu yàgg mu ni la pax ñu ne waaw ruy moo gën a yomb. fekk moom malaaka mi yor waa lekk gi wër na gis ni amatoo leen loo lekk luñ la jox mu génnaat bu dee ndox mi tamit noonu luñ jox ñu génnaat waaye yow mi tëdd moom xam nga ne dangay dem yàlla foofu day bàkku naa ana kan ma wa wa tafati saax bi sax illaa rabbika yow mislimu saax ñëpp def liñ man lépp suñ borom door a ñëw ak mbiram bis boobu ngay njëkk a gis malaaka boo nekkoon dixième étage dala fay fekk si suuf ngay mujjé lo yer ci alal si suuf ngay mujjé lo mëna yor si suuf ngay mujjé mo waral nit bu génné aduna day aj badi ndax lan dafa gis lu musta gis ñu badi kon bok bis bis bob nañ ko bayyi xel dañ lay génné ci kër gi li dess ci guddi mom dootuñ la ko mayati mom teudal ak sax sa soxna boy génné aduna ak lu lay bëgg bëgg day yuux ni ka len ngeen jël ko ndax lan amatu luma njariñ wa xala kay mu suturaale li de ci guddi ngeen bokku ko waye amutul day yuuxu yuux gi limi muy signifié mooy ñëw leen ngeen jël ki amatu luma njariñ mënatul wax dara mu ne amatul ma njariñ jël ko fa ngay mujjé morgue ba lañ lay yobbu fanaanal la kilimu la ba nga séddu guuy waaw lo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen akziru min zikri haadimu lazat na bàyyi xel li nga xam ne bu ñëwee day màbbu bànneex muy lan muy dee te kenn xamul kañ la kenn xamul nan la kenn xamul naka la adduniyaa daarun li man laa daar la daarul fanaan wa daarul xanaan kër la guy jeex kër la gu rab ñun lu ñuy dund ci biir bàmmeel yi duñ ko dund ci kaw suuf téeméeri at boo ko dundee da ngay doyal sëkk ay ni at nit ñaan ci biir bàmmeel yi ba léegi kenn mënu la wax la fa nek ñaari rek mo fa nek comme aduna amna ño xam tay ñing ci banex amna ño xam ñing ci nakar lool mo am ci biir bàmmeel yi kenn mënu la wax la fa nek lool tax bi sallallahu alayhi wasallam buñu musaana denc kenn ba pare day jël ñaari baramam yu teddi ciap ciapal ko ci bàmmeelam li ñaanal leen seen mbokk mi ba nu mëna fecc bañ man ko laaj tontu yin koy laaj ci biir bàmmeelam ba mu tontu moy lan man rabbuka ma nabiyuka ma dinuka do dañ la koy laaj kon bok loolu nañ koy bayyi xel xamna ni waxtaan bi mi ngi guddi waye kat liñ bëggono a wax apuna li amna lo xamne nañ koy bayyi ba inshallah allah ba bisu gamu ga euh, ñun ñepp yalla na yalla may aljana bala bobu yalla na yalla suñu dundu Yana na yàlla barke sunu duñ ñu njaboot xam ne nit ki nyari fi ñaar yi rek mooy ñëw ndax lépp loo doon jëf si suuf lu bon booy génn àdduna malaaka yooyu ñooy ñëw lu muy gaaw gaaw muy gaaw gaaw yu jëf yi nga bon yi doon def malaaka mi day ñëw ko wan ay malaaka yu kéemtaan ñooy ñëw waaye bu fekkoon